waaw mais mais mais démb des droits énergie et des mines. léegi lan la lan la woon. waa non non est-ce que est-ce est-ce choix bu mu porté. bu fekkee da nga ni kooku stagiaire la. waaw et greffier la. waaw non je pense c'est-à-dire boo bëggee dégg dëgg même bu nekkee greffier la moom dafa am. statut dama ne statut wu lan. déjà lan la moom. waaw non xam ngañ dem ba lu tax ñu teg ko ci post boobu. non non politique. non maanaam su ñu jëlee ci côté. dam du bu ma wax corps de métier bi moom dama pas non du critère bu ñu choisir dañuy xool ba xam kii am na maîtrise ci domaine boobu il n'a pas non yaa ngi juum ah naka laa juumee bêtise la ah ok remplacer mais Ousmane docteur Ousmane Cissé ku toll noonu ci Afrique yaa ngi jox beneen pays yaa ngi koy jax jox sénégalais yi fuite de mémoire yaa ngi permettre Afrique jël koo xam ne se l'un des meilleurs ok docteur Ousmane Cissé code minier bu bees bi ñu am nii yëpp ñun ñi demoon daan dem séminaire yi daan def formation ci bonne gouvernance minière député yi ñoom xam nañ son ko yàgg naa dem ci séminaire Ousmane Cissé di fa jàngale. ok Ousmane Cissé est côté Afrique fépp. Mhm. mu bind ci livre ñëpp xam ko gisoo sénégalais ni ñu defee réaction. Mhm. nga ne ma yow un greffier boo xam ni te te te avant de rencon récompenser euh, koo xam ne nii fii la taxaw attaque justice am attaqué Sénégal am daaw génn dem Mali. un mauvais exemple loolu mooy xale yi léegi yàq leen xas leen attaqué leen seen institution su ngeen ñibbisee dinañu dindi l'un des meilleurs teg leen fa ça c'est la promotion de la médiocrité d'accord je dis pas que l'acte qu'il a posé man xaw ma woon maître Ngagne Demba Touré parce que y a beaucoup de greffiers au Sénégal xaw ma leen parce que ñu ngi liggéey seen téeméer maître Ngagne Demba Touré lan laa ko découvrir mooy c'est parce que il a fait un point de a dit euh, euh, ko foofu loolu mooy lan xanaa dañoo bëgg yàq Somisen d'accord ça c'est loolu gis nga loolu tous les acteurs ñoo war a génn taxaw wax ci moo tax ni logique bi ma gis ñu jël nii affaire après RTS pour man journaliste dañ bëgg mu éliminer wu ah, lanceur d'alerte bu ñu ko jëlee jox leen ay kas mooy bu ñu amati journaliste bu ñu amati leen beneen bi ñu ñëw SOMISEN ñëw ci société minière bi ëpp doole jindi fa ki nga xam ne ni en Afrique bu dul benn ñaar la fi nga dindi ko fa indi fa kenn ko xam bu fa demee stagiaire lay doon mais si xool leen logique boobu gis nga tey moo taxoon appel candidature boobu bu amoon tey mais on dinañ am ku meilleur Ousmane Cissé. xam nga mais aussi appel à la candidature bu amoon aussi ñi nekkoon ci régime bi ñoom ñooy dellu si waat. mais mais kon Sénégal jaralu ko Ousmane Sonko ñoom. non waxuma jaralu ko dama ne la plupart des postes ñi fi nekkoon ñoom ñoo fi nar a dellu si waat. te ñoom dañu woote rupture. mais le directeur de dégueulement dama mooy lan Ousmane wax ci rupture mooy l'égalité des chances. Sénégal la ñuy jiital waaw mais yow tey pour con pourquoi mu conserver euh, le le le secrétaire général de la présidence. mais c'est parce que jàpp na ni war nañ mën a liggéey et c'est tout à fait normal. waaw waaw non dégg nga dégg bul def bul une chose et son contraire. non non j'ai pas une chose et son contraire. cest à dama ne. waaw léegi xam nga waaw mm-hmm. léegi. da nga ne jàpp nañu war nañu mën a liggéey parce que waa ji à la présidence gis nañu ni mën na liggéey. Mm-hmm. waaw kooku moo nekkoon homme de confiance président Macky Sall te ko dégager. Mm-hmm. ba ñu tànnee kooku. ba ñu bàyyee Samba Ardo Ba foofu ba ñu jëlee l' ministre des finances Diba bi nga xam ne moo defar bi depuis état moo moo nekk foofu planif directeur piiw budget bi. Mhm. kooku amul amul changement continuité la. Mhm. mais bi ñu defee continuité boobu ne dañu jël ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon kon tey boo ñëwee Somisen fekk fa ku mel ni docteur Ousmane Cissé da ngay def continu parce que xamul tax mooy c'est le Sénégal xam nga dafa am histoire bu fi mës am ma nettali la ko Alé il fut l'un des meilleurs experts décentralisation. état du Sénégal Wade dafa daanu pouvoir ñu mu ñëw fu ñu dem négocier avec les bailleurs du ñu am xaalis mais bu ñu demee outil ji expert ñu ne leen Sénégal la am ale loolu tudd mais ale loolu il a fallu que sëñ Abdou Aziz Sy Al Amin kilifaam parce que mooy denc taawam maam faam mu koy nuy di ko ziar moo ne ko demal liggéeyal sa réew. Mhm. vous pensez que tey directeur de l'horticulture bi nga xam ne Macoumba Diouf c'est l'un des meilleurs pour man bu yegsee tey Ousmane Sonko ko dafa war a liggéeyal parce que sénégalais bi ñuy teg Ousmane Sonko dem ak moom référendum ak c'est parce que dañoo jàpp ni daf leen wax bu ma yegsee sénégalais yëpp ay tolloo ci lépp fonction publique dafay am concours. ay ah, da jàpp ni kon. Euh, man ñaari actes yi dama ko wax ñëpp ma ne leen Ousmane Sonko et jomaay si réussi à faire ça mooy appel candidature bi ak concours fonction publique bi mu leer ni sénégalais yëpp égalité de sens lay doon c'est fini. ils peuvent être nos présidents à vie. parce que problème Sénégal ñaari yi la woon. mooy gars yi dañuy toog fee di cotiser. Mhm. mais boo ñëwee nga jël sa xarit sa syndicaliste sa politicien yóbbu ko port Waly Diouf Bodian. Mhm. nga jël foofu xale mais tey su wàdd ñun wàdd moo ñëw indi ay boy yu parewul mu def leen ay ministre yu parewul à l'université ñoom Fada ak yooyu si la université yàqu booy amatuñ envie jàng amatuñu motivation. nga euh, Macky Sall yegg si indi ay nen taal ak ñoom kii ak leen université pare wu ñu jàng ñëw mais dans les normes ji bokka fan la ko Abdou Diouf jëlee indi ko yóbbu ko xool fan courrier présidence Moustapha mm. Niass fan la ko Abdou Diouf jëlee dafa leen jàngal ñu yéeg Pape Malick Ndour mii de bi muy doog a ñëw nii fu ñu ko déparé le ministère de l' économie et des finances mm-hmm. mu nekk fa jeune cadre yéeg tey jeune am yooyu lan la leen waroon jëkk jox c' pas parce que on noo ñoo gagné les jeunes ñoo ñëw au pouvoir mais expérience ak compétence amul mm-hmm. âge mm-hmm. parce que da gis benn mag boo xam ne ci domaine am Sénégal wala Afrique moom rek moo koy mën mais nan nga mën a ñëw jël ay jeunes bombardé leen ay première te au euh, euh, poste de président parce que dañu liggéey loolu mooy les jeunes dem leen ngeen politique yi bu leen liggéeyati bu leen jàngati tey bu defoon loolu dafay delloowaat tout le monde ñu demaat jàngi ci les meilleurs ñoom ñooy ñëw au poste clé loolu tax ma wax la loolu donc pour mu wax la agriculture bi ngay wax nii ngeen koy ndamook ay leneen ak leneen mooy milieu d' agriculture da doon dox l' ancien ministre de de de de l' enseignement supérieur mathématicien jaar na agriculture Aly Ngouille lu moom loo ko mënti mun yi baykat la ku xamoon agriculture la dafa am fu agriculture tolloon au Sénégal l'horticulture dafa am fu mu tolloon au Sénégal mhm. donc bu mu yegsee lan moo fi am comme changement lu ñu doon xaar rek kay moo doon changement ak rupture totale bi mooy mu yegsi ne léegi biir ministère de l'agriculture nous allons prendre le meilleur ci post stratégique yépp ñu def ko appel candidature bu boobaa ñi aay ñi gën a mën meilleur ñooy génn sauver Sénégal Somi Sène bu ñu yegsee ku amee ku meilleur Ousmane Cissé ñu indi ko ces jeunes là ils peuvent venir être des chargés de mission conseillers techniques et consorts ba pare di échelonner di yëg parce que ñu xool l' exemple de Djibo Ka de Moustapha Niasse l' de Macky fan la démarré ba yegg si fii d' accord mais pas ñu yeewu rek bombarder jeunesse bi c' pas le rendre c' était loolu suñ koy def tamit je comme commencé nañu partage moom moo ñu waxoon paccoo du am kii bi comme mm. commencé nañu partage Pikine daf ko fàtte c'est que Pikine a contribué sur l' élection amul jeune bu ko gën a meilleur. d'accord Daouda Gaye dawul dem mal Mali dawul dem fenn Pikine la toog ñu koy tëj ci ko tëj ci kaso yi. muy xeex xeexal ñu ba ñu am cimetière xeexal ñu ba suñu foncier bi kenn bradé wu ko. Mhm. de je leur rappelle Daouda Gaye <laughs> Pikine li mu jox li mu jox Pastef ak li mu jox leneen Daouda Gaye mérité ministre Pikine amul kenn ku ko représenté dans le gouvernement. d'accord Abou alors. Euh, euh, euh. donc kooku moom plaidoyer la boobu parce que Daouda Gueye bu yegsee am nay compétence yi am na xam-xam bi. d'accord te xeexal na leen ko bu dee xeex rek la Daouda Gueye may mën a buso tamit buñ ko fàtte. <laughs> sama xuloo waale la mais li mu daj ci xeex bi kenn daju ko ci may mën a buso mérité d'être ministre. d'accord. parce que dafa xeex comme amatul appel candidature. Mhm. moi je dis may mun a buso sama xuloowaale am na cër. Daouda Gueye Pikine waaw parce ah, que mais jaraloon ñoom Ousmane Sonko ko jaraloon man ñuy càmmiñam muy at mu ñëw naan daf may. attaqué non bul bul bul yegg mais elle mérite xam lu tax xeexu Ousmane Sonko bi daf ci dégg lu ne daj ci lu ne. d'accord tey dans les premières kii Dame Mbodj dafa am mérite. li mu wax dama ci d'accord ak moom parce que bu amul appel candidature Ousmane Sonko accepté def comme politicien yëpp dafay retourner waat système bi comme ancien système bi def continuité mais bu yegsee partage la dafay am pàccu mais na jox nag ñi ko mérité Dame Mbodj daf ko mérité mais Pikine exceptionnellement dañ koo zappé parce que ku toll ni Daouda Gueye Pikine li mu dajal Pikine ak li mu xeexal Ousmane Sonko ci kaso bi ñu béy ko di jëli ji booy bu dawoon ba Mali di ko jox Somisène may mun a buso it sapo bu rafet bu ne sol na ko caq bu rafet bu ne sol na ko défilé na ci dëkk yëpp mais il elle mérité ñu jox ko poste stratégique Dame Mbodj la même chose Dame wax na ba kañ a ci gémmiñam xanaa war nañ koo jox poste su seddoo bi. <laughs> yaa ngi béppé ko bëri keneen. non non parce que daf ko mérité parce que dafa wax ba dafa wax ba ko si moom naaw dafa wax ba ba créé sitam tuddee ko laayam laayami xanaa nag dinañ ko jox poste dafa sonn moom Ousmane moo ko woote mais nan ngay mën a jëlee ay Cheikh Bamba Dièye ñi ñëw bërki démb nan ngay mën a jëlee ay ay directeur ONAS bi Cheikh Dièye ñi ñëw ki démb mais Dame Mbodj ay Lacoste ak yooyu may mën a busoo ak tamit lu ñu munti wax dañu xeex. xas ñi attaqué nit ñi sosal nit ñi ba yegg si fi ñu yegg si tey ban mérite la ñu ëppale ñi ñi ñëw allié yooyu ñu jox seen poste de responsabilité yooyu yu yooyu boo décidé nag ne léegi dañuy séddale ñi sonnoon mais Damboj est plus méritant Maïmouna Bousso est plus méritant waaye Pikine nag li mu xeex ak li mu contribuer ci combat bi Daouda Gueye si table gouvernement la waroon toog pour Pikine parce que Pikine ñëpp bëgg ñëpp ñëpp a jàppale Ousmane ndax Daouda boobu te Daouda Gueye li tax sax ñu topp ko mooy xeexu Pikine yëpp la porté woon almaire yi l'extension des cimetières les ñaay xeexu étudiants yi xeexu élèves yi daw dëggee même ginaar bu réeree Pikine sax mu topp boroom ginaar bi wëral ko ko ba mu gis ko ba pare versé ko ci compte Sonko. d'accord mun nañ jeexal foofu. waaw parce que loolu plaidoyer la ay eh, gis-gis la. parce que dañ leen yàgg a loolu loolu lu ma metti la pàccoo bi commencé na. séddoo moo am amul appel candidature reniement moo am mais ñi ma xam te ñu xeex nañ leen jox seen mérite. loolu moom lu ma dencoon la te fu ma toog tànk tant que gisuma Daouda Gueye décret Maïmouna Bousso décret Dame Mbodj décret parce que jàkkaarloo nañu ba pare nañu jàkkaarloo parce que reniment am na gor sa wax ja am na après euh, am euh, la mu waxoon defu ko. Mm. reniment bi moom kenn mënuñu ko layal. d'accord bonne gouvernance nag IG tànk mu ngi nekk présidence. Mm-hmm. cour des comptes tànk que indiwuñu loi buy wax. ni ni ku képp ku nekk ci régime. financières yeeg képp kuy diriger benn kii da nga war a apolitique mooy mooy direction poste yi mhm. mais ñoom ñoo ko waxoon jomaay da nga leen doon déglu ñoom ñoo ko waxoon d'accord mais dañ ko wax bañ dégg ko donc dañ ko appliquer dañ war a appliquer beneen bi stop rapport yi aussi tamit ñu xool rapport yi mhm. ñuy lire rapport yi normalement conclusion des assises nationales mhm. Ousmane Sonko da cee bokkoon na ko indiwaat les assises de la presse dans l'urgence parce que maa ngi gaa yaa ngi ñoom lii saa ngi xaar Serigne Bassirou euh, Serigne euh, kii Guèye Serigne Saliou Guèye moom sax mériter dafa war a ñëw tamit parce que wax na ba feebar wax na ba ma yaakaaroon ni ci kaw plateau yi lay daanu. d'accord ñooñu dañu am mérite tam parce que dañoo xëy wax muy dox lañ doon lañ créé ñoom ñoo créé wax muy dox mais ñëw nañu ba falu nag mais nañ leen jox seeni responsabilité ñu jox papa ale du dem ba xaru na daa xaar ba sonn jotul mu xaru jékki tàq parce que dafa sonn xaar ba sonn mu jigi ngeen gi wal fu mérité woon ñu koy kañotal d'accord <coughs> d'accord Abou c'est bon mu nekk fermé point boobu. Ah loolu la <laughs> loolu la. ok alors fi ma bëgg ñu ñu dem fa très rapidement. ñaari ak seen mbokk journaliste yooyu. ñaari non kii abu laa non Abou defal ndànk na. animateur yi ne ci plateau yi. bàyyil journaliste yeeg ñiy liggéey seen liggéey ñu liggéey ko waaw non non non non non il faut pas ngay attaquer quiconque nag. saa moom du ma la ko du ma la ko kii déedéet déedéet. non non suñu plateau yi la ñuy toog dañ leen fi invité dañuy ñëw wax def seen liggéey. non non non non <laughs> non Abou non non il faut pas il faut pas nga leen di indexer comme ça. lu tax ñun Sénégal dañuy fàtte. xam nga dañuy fàtte Thierno Thierno Alassane Sall bàyyi leen. xam nga bàyyi leen ñu def seen liggéey correctement. waaw non xam nga liggéey bi man d'accord naa ñu def seen liggéey mais damay fàttali yi Ousmane ak Diomaye ne leen ngeen amoon ay nit yu ne ci plateau yi ay chargé de comme la ñu bëgg a doon